mu ngi juddoo centenaire ci ndakaaru yaroo fa amal fa itam am njàngam waaye def ay études supérieures am soxna faat Bintou Pouy jóge fa di liggéey ci biir administration waaye itam di liggéey ci biir nguur gu Sénégal moom soxna si ginnaaw bi ñu dénk ko sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax dégg ndigalam tax mu daal di fay bàyyi loola yépp ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba ngir liggéeyal fi sëriñ Abdou Karim Mbacke ñàkk liggéeyam googee terewul social lu topp soxna Fat Bintou Pouy ci ak dundam tax bi mu ñëwee fii ci Ndindi ñu koy dàkkantalee première dame bu Ndindi mu jël loxoom dugal ko ci wàllum social maanaam dimbali soxna yi waaye itam dimbali njaboot gi ci lépp loo xam ne day jëm ci suqali leen tax sax ba jigéen jigéeni Ndindi tuddee ko borom deer ngir dugal gu mu dugal loxoom ci boobule projet ba tax jigéen ñu bari tey am ay financement ci diwaan bi Ndindi waaye itam ci dëkk bu sell bi di Touba moom soxna faat Bintou Pouye ak njàmbaarteem ak bëgg liggéeyam tax mu xam ne jàppale nguur gu Sénégal waaye rawat na président Macky Sall mën naa indi koom-koom waaye gën a suqali réew bu Sénégal tax mu daal di jóg joxanteeg président loxo ngir jàppale ko ci Sénégal émergent bi nga xam ne ni président sumb na ko loolu lee tax ci campagne présidentielle atum 2019 bi moom soxna Fatou Bintou Pouye sonnul benn yoon guddi ak bëccëg ngir ànd ak waa zone de bu Ndindi ngir battre campagne ci gox yi gën a sori ci Ndindi ak li wër biir Touba. moom soxna si nekk jàmbaar yi fàkk tëdd boo koy seen ci réeju neex ji nga xam ne ku neex deret la ku mën a muñ waaye tam ku mën a accueillir ak dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu aadama yi ko wër ba tax mu mën a jaxasoo ak nit ñu bëri moom borom daayiratu tarbiyatu wal ci xam ne day suqali soxna yi moom milee nekk soxna soo xam ne nii royukaay la ci dëkk bu sell wi di Touba moom soxna Faat Bintou Pouye nekk soxna soo xam ne nii mën nañ ne multidimensionnel la maanaam ku am ay xar kanam yu bari la te xar kanam yooyu lee benn bu ca nekk mën naa andil njëriñ askan wi yile saa mu nekk yaay nekk ci biir këram di jëriñ askan wi waaye itam taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ndindi yile saa itam mu nekk femme de développement di jëriñ ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéeni askanam ak goxam loolu nag nekk xar boo xam ne nii jigéen ju nekk bëgg ngaa toogee boobu lee toogaay loolu lee moom soxna Faat Bintou Pouye di fësal ne mu ne am li ko ko may bokk na ca dégg ndigalu borom këram ak sëriñam sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarimal axlaax